salaamaaleykum dalee nag jàmm ci Xarala Academy mbokki seen Xarala Academy di topp suñu formation Python Django tey dañoo ñëwaat ci lu am solo mooy naka ngay def ba afficher détail contact yi par exemple tey buñ cliquer fii mu yóbbu ñu ci beneen page boo xamante ni moo ñu afficher tous les détails ok léegi comme d'habitude li njëkk a li njëkk a def mooy ñëw fii nii créer suñu kii nu mu tuddee sax suñu view léegi damay dama koy tuddee contact details. nga def request après request bi nga def return render premier paramètre toujours c'est request nga def virgule fii nga jox no template voilà bon contact link ko bëgg contact ñu def contact detail point html fii ñu jox suñu contexte ok ok fini def contexte bi léegi comme fini nii objet yi ñu récupère dafa c'est-à-dire contact yëpp mais fini nii benn objet lañ war retourner voilà pour retourner benn objet am nañ euh, benn nu mu sax benn fonction bu ñu koy permettre ñu naan ko get object or 44 moo nekk nii c'est-à-dire jox ma objet bi bu nekkee existé na wala nga jox ma résultat 404 ok léegi noonu la ñuy def damay def contact parce que fii benn contact laa bëgg retourner égal contact point objects get voilà fii nii première argument bi non def contact da ngay def get object or foofu 404 léegi fonction bi gis nga première bi dalay laaj ban kii ngay jox ban classe nga ni ko classe contact léegi deuxième argument lan la mu ni jox ko beneen argument léegi fii dañ koy jox id égal à id le vous xoolee fini idb c'est un non défini mais fii ñu dal koy def comme argument ñu def ko fi comme argument bu ko défé fi on la utiliser paré fofu ñu koy contexte bi ñu def contact hmm, contact c'est bon léegi ñu def loolu ñëw fii nii dem si urls fii nii daat koy importer moom aussi contact détail léegi damay copier première lien bi bii nii contact bi def ko fii euh, virgule ok léegi fii nii da koy jox beneen argument léegi argument bi tamit da ngay def type bi fini nii type bi int la parce que int moy entier c'est-à-dire ben contact la kon light du du contact lañ bëgg récupérer légui fi nga jox contact details c'est bon comme ni nga gisee ni def nañ ko pare légui bu ñëwé fini ñu def un par exemple voilà dañ nan template does not exist li tamit c'est normal légui bu ñu waxé lolu ñu ñëw ci template daat koy créer légui ñu def contrôle n euh, maa koy enregistrer daal di bind contact detail point html voilà léegi mu xool ndax dina ñëw walla ñëw na template ñëw léegi bu ñu defoon benn id boo xam ne existé wul lan lay indi par exemple id 3 gis nga da lay retourner 404 parce que loolu lañ ko wax fii nii dañ ni ko get object fii nii or 44 c'est-à-dire jox ma objet bi ma bëgg walla nga retourner ma page non trouvée moo tax fii mu indil ñu 404 mu nekk loo xamante ni am am solo

if bi na ko for bi tam dañ koy dindi for bi within now then now then now yaakaar naa buñ dindee loolu mën nañ testawaat ñu xool ndax dina ñëw wala du ñëw voilà gis nga andi na ma ba munaas léegi buñ defalee kii par dañoo bëgg nii fii nii ñu def euh, contact bii nii mën nañ ko afficher ci kaw rek par exemple

colonne bi ba mu jox benn 6 parce que dama bëgg mu centre texte bi yëpp léegi centré na ko fii nii mooy ba munaas léegi li si des mooy téléphone bi téléphone téléphone jàppoon ngeen ko de ah. contact lañ defoon léegi bu nekkee jàpp ndox mën nga ñëw fii nii nga xool loo def voilà ngi nii comme contact point téléphone léegi euh, contact point téléphone. la moo toppaat léegi contact point téléphone contact point email léegi lii tamit danga koy répété parce que fii nii amuñu bokkul nga def contact point email ok léegi mën nañ ñëw si ñaari rek li si des jaraaw garaawul jaruñu koy affiché quoi ok mën nga tamit date d'enregistrement quoi alhamdulilah sax ah, ok léegi ma copier fii. def date d'enregistrement date à léegi nga ñëwaat fii nii ci biir modèle si bi nga copier date enregistrement bi nga ñëw def ko fii nii ok léegi ñu xool ndax lu muy indi voilà ñëw na contact mun leen noonu parce que am na contact bi defu defuñu email bi mooy ba mu naas léegi ñu xool deux bi parce que bi yaakaar naa def nañ email voilà bi indi na email bi date bi moo nekk nii kenn formaté wu ko mais bu la neexee mën nga xool noo koy formaté wala ñu formaté ko ok date à jour c'est bon je pense comprendre ngeen nuñ koy nu ñu affiché détails yi di nga ma laaj contact bi fan la jóge contact bi mi ngi jógee fii nii moo nekk bi views bi moo nekk nii moom lañ passé fii affiché ko fële voilà mbokk yi den saan Xarala Academy mu yaakaar ni jariñ ngeen ci vidéo bu baax merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel